Malick Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malick euh, Diop euh, nga nekk chargé de communication bu regroupement de taxis urbains du Sénégal secrétaire national bu mouvement ànd dooleel euh, transport ah. déjà ànd dooleel transport seen mouvement boo ban candidat lay jàppal tànk ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre. parce que dañu nekk en phase de massification di yaatal euh, mouvement ci région yi nga xam ni sur les cinq cent cinquante sept communes yi nga xam ni moo nekk Sénégal léegi nag mënaguñu choisir candidat parce que dañuy xaar ñi nga xam ni dañuy déposer seen candidat pour ñu valider ko ñu xool ñan ñoo war dem élection bu ko defee ñu xam kan la ñu war a mën a àndal dem ci élection yi di ñëw muy février deux mille vingt quatre. Mmh. lan ngeen di xaar pour ut seen candidat exactement. waaw euh, euh, mouvement dans les transports dafa dugg ci géewu politique bi non pas pour ut am candidat moom euh, boo xam ne jóge ci ñun di laaj réew mi mais dañu bëgg candidat yi nga xam ni dañu ñi dañu bëgg a dagaan baatu askan yi ñu xool kan moo ci am programme mu transport boo xam ni méngoo naa ñun transport bi ñu bëgg Sénégal léegi nag bu ñu toogee ba xam que ñan ñooy nekk candidat effectivement bu boobaa nag parce que am na ñu ñuy contacter pour rencontrer ñu mais boobaa ak léegi dañu toog ñu mënaguñu rencontrer kenn dañuy connaître suñu phase de massification ba ñu génne candidat yi effectivement ñi nga xam ne war dem élection bu ko defee ñu door a dajeeg ñoom pour xool kan lañu war a àndal ci élection yi bu boobaa dinañ mën a wàcc battre campagne ñaax suñu ñooñ ñu jàppale ko pour kooku mën a jot réew mi pour mu mën a doxal programme de transport boo xam ne dina méngoo acteurs yi ñu nga xam ne moom lañ Mm-hmm. tey jii si si euh, peut yi lan ngeen di xaar si ki war a jiite réew mi en deux mille vingt quatre soreetul dara lan ngeen di xaar si jiitu réew bi bu bees bi ñu war a am voilà li ñuy xaar si ki nga xam ne moo fas yéene jiitu réew mi mooy mu ñëw pour liggéey askan wi parce que fii ñu toll nii ñu surtout secteur bi ñu féetee muy secteur du transport daanaka bu doon ni ko dama naan benn tànk lay doxee mooy secteur bi dafa sëngeen tey ñu ngi gis lu xam ni n'importe quoi ci secteur dañ ko bàyyi yàlla ba nga xam ni kenn xamatul kan moo war a def lan ak kan moo war a def yem fan. léegi loolu yëpp bu ñu ko gisee li ñuy xaar ci ki nga xam ni moo war a jiite réew mi mu présenter programme boo xam ni dañuy wóor ni programme bi baax na pour améliorer système mu transport Sénégal bu ko defee muy bénéfice su acteurs yi nekk bénéfice su euh, sénégalais yëpp. waaw loolu la ñuy xaar moom. léegi si yaatal Malick Diop lan mooy jafe-jafe taxi urbain yi si Sénégal yëpp lan mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ni yéen a ngi koy jànkoonteel exactement. waaw euh, Ndeye Comba jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel jafe na bari na trop ay li ñu gën a gis ngeen Dakar ni mu mel ak ay moto d'eau yu def du transport de personnes illégalement te loolu dafa am. Euh, arrêté ak euh, bu ko organisé muy arrêté quatre vingt neuf zéro trois boo xam ne day tere day tere deux roues def transport de personne fii si Dakar gis ngeen tam wàllu transport irrégulier ñi mu yaatoo waxatuñu kalandoo yi nga xam ne circulé mais ay particuliers yuy làqatu si ay plateforme comme ay Yango X ak yu mel ni ñoom di def transport irrégulièrement di concurrencer ñi nga xam ni dañu am un permis professionnel am licence am assurance bu leen ko permettre ak seen livret de conduite ñooñu lañ ñëw nekk ay particulier nga xam ni oto bi ñu yor amuñu licence amu leen assurance bu couvrir client yi yëpp ñu ñëw di concurrencer système bi ñoo nekk illégalement gis tam nguur gi def alal ju bari ci nouvelle transport de masse lu ci mel ni TER ak BRT bi nga xam dafa suñu daw tey mais mesure d'accompagnement yi nga xam ne moom la waroon jiitu avant BRT di tàmbali liggéey dañuy gis ni nguur gi jéemu si dara gis nañ ko tam ñu ngi renforcer parc Dakar Dem Dikk muy lu am solo mais dafa am ay transport privé yu fi nekk yoo xam ni boobu ba léegi plusieurs milliers de Sénégalais si ñoom la ñuy jaar di dem ak a dikk ñooñu nag mënu leen ba leen bàyyi seen oto yi màgget yi ñor di def di renforcer parc Dakar Dem Dikk di def politique transport de marche di si investir des centaines de milliards ba pare bàyyi ñëwee ñu toog di am kon di am jafe-jafe loolu jëmale wu réew mi kanam loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ni en général moom la système mu transport bi di si di dund mm-hmm. léegi si côté parce que gis nañ aussi si côté renouvellement parc bi euh, état wu Sénégal tey jii sax war a dalal bus yu bees yi nga xam ne mu ngi war a dugg ci Dakar Dem Dikk yéen naka ngeen gisee mbir moomu euh, déjà Dakar Dem Dikk euh, ñu ngi leen di renouvelle seen parc te yéen boobu ba léegi yéen a ngi laaj mais état bi taxawu si. voilà xam nga loolu tey mooy wane ni rek état bi concurrence transport urbain bi illégalement parce que rôle état du ñëw di concurrencer ses privés tey euh, renforcer parc Dakar Dem Dikk lu baax la lu rafet la lu am solo la euh, def politique de transport de masse jamono moo fa toll BRT xëy na jamono moo fa toll TER jamono moo fa toll mais dafa am ay transporteurs privés yoo xam ne ñoo gën a nekk secteur bi mais ñooñu depuis 2016 état mi ngi ni dig renouvellement du parc te ñaanuñu ko saraxuñu ko ñu bëgg mooy ñu accompagner ñu jàppale ñu ñu mën a renouveler parc bi bu ko defee loolu nekk avantage yu chauffeur si nekk avantage sénégalais yi parce que boobaa nañu permettre ñu mën a euh, présenter meilleure qualité de service mais jafe yi ñuy dund day waneen rek état bi fullaalul faydalul acteuru transport yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey boobu ak léegi te bu yaakaaree lii mu def mooy saafara si parce que taxi yi kenn mënu leen a génnee ci transport urbain car euh, euh, aftu yi kenn mu leen a génnee si transport urbain interurbain bi bus yi yëpp kenn mu leen a génnee si transport urbain li fi nekk nag moom bu fekkee dafa bëgg développement réew mi moo ko ñor Séné amul deux Sénégalais deux poids deux mesures tey mën nga améliorer sa système de transport de masse mais en même temps accompagner acteurs yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di di loolu mooy fi nga xam ni moom la ñuy xaar état du Sénégal. Hmm. waaw si côté càq-càq yi euh, tout le temps dañuy dégg ngeen kay ŋaaññi lan ngeen bëgg exactement ak càq-càq yi da ngeen bëgg ñu arrêté leen à Dakar wala lan ngeen bëgg. waaw càq-càq yi xam nga ñun suñuy rak ak suñuy ay sénégalais ñoo nekk di si liggéey mais transport de personne waruñu ko def fii à Dakar parce que yoon moo ko tere. tey sàkket yi mënoon nañu fi nekk di def yónni ma di def ay jël ay bagage di dem di ko ñëw di ñëw mais tey sàkket yi bu ñu demee ba dugg def transport de personne amuñu assurance amuñu permis amuñu plaque d'immatriculation loolu c'est dangereux ci ci Sénégal tey yaa ngi gis agression yi sàcc yi yëpp ñi nga xam ni moto deux roues lañ koy def yoo xam ne kenn mën leen identifier loolu lañ ni état du Sénégal daf ko war a organiser ñu xam kenn ku nekk fa nga tàmbalee ak fa nga war a yem ñi nga xam ne ñoo war a def transport de personne ñu dooleel leen jàppale leen ñu def transport de personne ñi nga xam ne waruñu ko def ñu génne leen secteur bi parce que loolu day indi euh, wàññeeku ak doole ci système bi nga xam ne moom la fi fekkoon. Mm-hmm. loolu lañu nii xeetal Sénégal war na ko xoolaat bu baax a baax mooy moto deux yi gouverneur de Dakar rappelé na ko. à travers l'arrêté 89 03 pour wan leen amu leen sañ-sañu def transport de personne fii si Dakar foofu rek la ñuy xaar hmm. mooy clando yeeg application yooyu ñëpp dañu war a def assainissement du secteur du transport vraiment foofu la ñu toll. bu weesoo aussi euh, cag-cag yi gis nañ aussi projet berte bi jàpp ngeen ni mën na gàllankoor seen liggéey euh, naka ngeen gisee projet berte bi war a démarrer 27 euh, décembre bile ak si ban côté la mën a gàllankoor taxi liggéeyu taximaan yi waaw projet BRT bi nee naa la samay kàddu lu baax la jamono moo ko laaj waaye boo xoolee gàllankoor yi nga xam ni BRT dawul mais gis ngeen gàllankoor yi mu commencé indi Dakar mooy route yi nga xam ne moo séq BRT bi te ñu réservé ko pour automobilistes yi route yi dafa xat route la yoo xam ne bu ko vélo paanee sax oto yi duñ dem loolu nag def naa baaxul si di am développement réew tey constat bi ñu def mooy avenue yi mag yi nga xam ne ñoo traversé booru euh, ñoo BRT bi avenue yooyu dañ indi embouteillage yu mag moo fay am te BRT bi commencé bu ndam léegi nag man dama jàppoon ni bu fekkee yow da nii da nga ñëw pour jàppale sénégalais yi pour seen dem ak dikk mën a yomb boo defalee BRT yoonam mu mën a daw tranquillement mais da nga war a def wuti deux voies deux voies bu ko defee oto yi ñoom itam mën a circuler dox mën a dem bu ko defee lépp yokk des ñaareel bi mooy euh, boo nee da ngay defar BRT te diggoon ñi nga xam ne ñoo fa nekk leen daa leen seen parc ça fait plus de cinq ans ñu toog di xaar loolu nga xam ñoo war a accompagner transport de masse yooyu état bi di def boobaa ak léegi état bi deful dara kon jàpp na nii état dafa ñëw pour nërmeel transport privé bi nga xam ne moom la fekkoon loolu nag la ñuy la ñaawlu mais BRT en tant que dañ koy rafetlu parce que jamono moo fa toll mais dafa am ay mesures d'accompagnement yu mu war a àndal pour transport bi yëpp mën a dox bu ko defee mu mën a nekk bénéfice. voilà kon euh, Malick Diop ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waaw dañ ko ma maa ngi sant bu baax. voilà ñuy fàttali euh, yow ay ca waaye bi nga xam ne am ngeen ko développement réew mi ak vraiment di allo Malick. waaw ma ne ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waaw ndey ko ma yow itam ñu ngi remercier di remercier waa réew mi yëpp vraiment seen taxawaay ci développement réew mi. ak euh, présence bi nga xam ne am ngeen ko ci secteur médiatique bi vraiment secteur transport yëpp ñu ngi leen bu baax a baax ndax taxawaay bi nga xam ne am ngeen. mi ngi noonu ñuy fàttali ne Malick euh, Diop moom mooy chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal nekk secrétaire national bu mouvement ànd doole transport. dooleel transport. voilà jërëjëf Malick Diop. voilà jërëjëf Malick Diop.